demuñu élection bu Karim bokkul Macky da doon xaar ñun ñu def loolu gëmul woon ne Sonko dina taxaw ne jomay la non seulement gëmul woon ne sonkoo dina taxaw ne Diomaye la mais jàppoon na ne bu sonkoo waxee Diomaye la ku mel ni Moussa Balla Fofana dina ko ne waaye Diomaye gëpp ëpp ma xam ama ah. mhm. division division wax ñu ne ko li nga bëgg ci lañ lay fekk non seulement ñun ñu wax ko loolu mais am ñu ne ci biti ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye ñu mel ni ñeneen ne koy Sonko li mu bëgg ci lañ lay fekk muy l'unité autour du projet loolu compliqué ko mu dawal ak Diomaye mu ne kon Diomaye dama koy bàyyi ci kaso bi ba ñun ñu xam ne kat Diomaye moom ci kaso bi lay campagne moom ñun ñoo koy campagne campagne bi commencé mu def sondage gis ne sénégale yi nangu nañ lii donc xam-xam moom noonu doon non xam nga man je ne suis pas dans les extrêmes parce que le plus important c'est la stabilité de cette décision moom l'étau se resserre mm-hmm. ah c'est tout ce que je peux dire pour le moment c'est simple Mbissane vous dites yaa ngi doon euh, la démission du président le 2 avril devient une forte possibilité ah wax dëgg rek aujourd'hui s'il était un gentleman comme son premier ministre, s'il était un gentleman, le PM aurait dû démissionner. Le président Macky Sall, aujourd'hui, franchement. dafa waroon démissionner daal. waaw mais est-ce que nag bon mën na mën bon vu que son mandat termine bon. d'accord l'intérêt du pays yooyu yëpp mën nañ ko xool organiser élection yi mu dem. alors moment bi ñuy duggee ci dialogue bi nag excellent ci déjà sax xam nga fi ñetti question yoo xam te ni ça touche le dialogue avant Abdoul nga may ma ko rek ñoom ñaar puisque ñoom ñett sax ñoo ko. Euh, ñoom ñaar ñoo ko wax di Zeyna Bamba ak euh, kii di Mbissantine donc Zeyna rappelé ko la question rek puisque on ñu ngi ci dialogue bi donc euh, waaw pour aller plus vite mooy dafa yàggul dara ñu gis ni dafa am loi d'amnistie boo xamante ni dañ ko war a conseil constitutionnel c'est vrai que démb gisuñu ko mais ñu ngi wax ni dialogue am na président Macky Sall waxtaan na ñu gis ci même jour Alioune ak kii di Pierre Goudiaby Atepa def des sorties médiatiques confirmé ni waxtaan euh, xëy na mu ngi am ci seen diggante euh, waxtaan boobu noonu lan mooy wund bi est-ce que waxtaan la pour tey prisonniers yi ñu génn tey ñu génn est-ce que tey ci waxtaan boobu ci la ñu tënkee pour ces élections yi même bu dee du yàgg mu nekk ci date euh, boo xamante ne yàgg dara est-ce que tey ci waxtaan boobu mën nañ ci xaar kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génn. ñu li nga xam ne moo di élection bi waxtaan bi parce yaa ngi naan ñun waxtaanuñu waxtaanuñu mais am na ñeneen ñu génn wax ne waxtaan am na. déjà kay li njëkk mooy ndax waxtaan am na. waxtaan. waaw léegi bàyyi ko moom mu tontu. waxtaan waxtaan amul. waxtaan amul nee na. waxtaan amul. d'accord. ndax ki ngay waxtaanal da ngay toog moom. ñaari nit dañoo seq waxtaan. mais dama bëgg a préciser benn affaire il ne faut pas non plus que nit ñi duñu jël comme que ne ñun nu sommes ay nit ñu radical ñu nga xam ne bëgguñu wax dañu enfermé wu ne du ñu jaloge mm-hmm. ça ce n'est pas ex-Pastef mm-hmm. je rappelle quand même pour que nit ñi parce que les gens ont la mémoire courte et la manipulation dafa gaaw mm-hmm. surtout avec ce régime surtout bi intérêt général taxawee coronavirus ñëw ci réew mi c'est les cadres de Pastef ñoo toog def liggéey jox ko Ousmane Ousmane sol dàllam dem fekk Macky Sall ca palais ba. nuy ragal ci discuter. ci discuter gëm nañ ne suñuy xalaat xalaat yu sell la pour l'intérêt des Sénégalais. justement c'est pour l'intérêt des Sénégalais moo tax ñun diluñu pour diir dialogue wuñu diluñu parce que c'est ça le vrai mot mbir mi du question dialogue mm-hmm. ñun dañoo nekkul ci deal. dilu leen. deal mooy lan. waxtaaneeg régime bi loo xam ne intérêt nit la wala intérêt ab groupe te askan wi yëgut tinut loolooy dil mhm. am loo bàyyi moom mu am lu mu def ñun nekkuñu ci loolu mhm. dilu leen donc te loolu bu fekkonte ne suñu culture la tey bu Ousmane Sonko nekkee ci lien de la détention ñu wax ko carrément que ne ñëwal dialogue pour bokk am ñaar ñoo xam ne dem nañ pour bokk ñun ñu ne ñun demuñu li taxoon boobu demuñu principe bii lañ doon respecté dañ ne la président Macky Sall débat bi nga organisé avant les élections mën nañ ñëw mais à condition ngeen jox ñu terme de référence yi lan la ñuy waxtaane parce que bu leen ko fàtte ba ñuy waajal dialogue boobu débat wu troisième mandat moo taxawoon te Macky Sall avait montré tous les signes que dafa bëgg def troisième mandat te ñun suñu position moo nekkoon na terme de référence yi génn ñu xool ndax ci terme yi troisième mandat mi ngi ci bu ci nekkee duñu dem su ci nekkul ñu dem looloo nekkoon suñu position donc ñun suñu logique mooy bañuñu débat mais deb ñun duñu débat ci suuf dañuy débat diggu bëccëg a nar a kàmb sur des sujets très clairs yu nga xam ne sénégale bu ko gis xam ne ñii kat dañoo jug sol seen dàll pour discuter sur l'intérêt général mais discuter wuñu pour des logiques personnelles deuxième encore toujours exemple parce que dama bëgg a joxe exemple pour que bu ñu jógee fii bu ñu kenn tuddat ci mbir yi ay dialogue voilà donc war naa leen ne de bi bi ñuy bi nit ñi di deb jaloge pour seen i intérêt di di di bokk ñun bokkuñu. Mhm. bañ paree teg nañ ñu daan ba nee nañu comme ñëw leen du ngeen bokk ba Ousmane nekk ci kaso bi munoon na négocier génnaat bokk. Mhm. parce que jusqu'à la lan moo tax dossier Mame Mbaye bi ñëw à quelque jour de la décision. parce que tout le monde pensait que ne à un moment ou à un autre booy bi de politicien la comme ñëpp dina bàyyi tout le monde il se disait ça Ousmane n'a pas flanché wul d'aucune manière jusqu'à jusqu'à dernière minute mu accepté perdre éligi éligibilité jël jomaay ne ko demal bañ dile ak dialoguer pour nos intérêts personnels moo tax Ousmane Sonko nekkul ci liste candidat yi ñu jël jomaay tef fa su ñun suñu discours dafa méngoog suñuy act ak suñu parcours donc amoon nañ opportunité dile pour nos intérêts dañ ko refuser parce que boobu gëm nañ ni pacte biñ jaayanteeg sénégalais yi mooy projet bee ñu tax a jug Ousmane taxul Diomaye taxul Balla taxul donc exemple bu clair ñëpp teg ci bët ñun 2024 woon nañ ñu dialogue pour suñu intérêt ñu bañ tëj nañ ñu bëgg ñu négocier ñu bañ jël beneen candidat teg loolu kum doyul nag dara dootu la doy ba ca topp 2019 parti démocratique sénégalais ba ñu xañee Karim Wade mu bokk boobu protocole de Conakry xam nañ nu mu demee parce que ki moom parti bi joxuñ ko mu bokk ñu ne kenn du bokk donc ñu ko fiy def xam nañ leen nañ ñu jox ñun suñu wàll ci nag wi suñu wëy dafa rafet bu ñu kenn dugal ci ay détails yoo xam ne ñun nekkuñu ci on ñun ñu dañuy jël su et puis c'est des décisions difficiles ah. c'est des décisions extrêmement difficiles que nous prenons donc bu ñu bu ñu ñoom nekk suñu ligne ba noppi waa ji dem ba gis ne ñun suñu endurance suñu constance suñu gëm projet bi ak sénégalais yi tax na flanché wuñu jusqu'à la dernière minute sénégalais yi gis loolu fekkuñu ci. ba mu def sondage veille des élections mu gis ne Diomaye coalition Diomaye va gagner les élections mu commencé nag bàyyi libéré nit ñi ñu bëgg a jël loolu ne ñun dañuy dile ñun dile ñu wok kenn bi bi ci topp mais ñun foofu laay terminer ñun ñun bu ñu dilee rek ay cuune lañ bu ñu discuter ay cuune lañ hmm. mais saa waay à la veille des élections def na sondage gis ne Diomaye ay c'est-à-dire que ne sur di Sénégalais minimum et là je le dis juste pour, exemple j'ai pas les résultats des sondages je dis ça parce que waruma ko awma droit wax ko mais je dis je dis, je dis comme ça veille des élections ñëpp mën nañ nangu ci réew mi ne deuxième tour Pastef day bokk deuxième tour te ñëpp mën nañ nangu ne élection yi dañ koy gagné même minimum si sénégalais sur dix allaient voter pour nous au minimum donc ñun loolu lañ xam donc ñun xam nañ ne tey li ñu enduré durant toutes ces années tax na tey ñun la sénégalais am yaakaar donc caq bu dee fii am na ko fi takk caq ñun la borom caq nag day moytu borom baatu neen du xeex ba ca topp Macky Sall xëy def ñombe lu rëy lii mu def ci réew mi teg ñu gàcce violer constitution pousse élection loo xamante ne nii impopularité bi mu ko jural mais kenn bu ko koo jege donc tey bu ñu organiser woon élection tey mais daf lay leer ne benn bokk yaakaar bu espérer woon am kat léegi saa waay deux ñuy am te ñun donc ñun on a politiquement on a le vent en poupe donc tey boo defaatoon ay sondage tey wóor na yàlla régime bi munta am li mu amoon avant cette décision calamiteuse qu'ils viennent de prendre ça c'est logique donc ñun décision bi d'un point de vue purement politique daf ñu gën a dooleel ñun waaw ñun dinañ am loolu ba noppi mu leer ñu ne bu score bi naroon nekk 6-4 léegi 8-2 la mu leer ñu ne élection buy am dans six mois dans sept mois dans huit mois dans neuf mois wiiri wiiri jaari ndaar dañuy gagné mais mais mais yaa xayti lu ñuy dem di wax ak Macky lu ñuy dem di dile dile pour lan ñu woon Sonko ba bañ a focaliser wu ci Sonko moo tax ñu teg Diomaye léegi kon ci lan lan lan moo tax ñun ñu war a compte di changer logique béykat la muy dundee ba am si kim bu bu bu bu amee xel na ko continuer. mais li Bisaan wax sànq. donc amuñu ci intérêt ba ca topp ma préciser encore ñii muy libéré ñii dañu waxante dëgg lu mu diggee woon la bu yàgg bañ koo def. Hmm, ah waaw waaw mars le prisonnier yi commencé. ba xalif bi yónnee ñu ne ko ñun fii amoo loo fii ñaan looy digal la. Hmm. waaye bëgg nañ suñu ñi nga tëj nga libéré ñi ñu rey ñu enquête ñi ñu yàqal ñu indemniser est-ce que Macky respecté woon na ko. en pas de. et pas libération libéré wu fi kenn. deuxième bii bi nga xam ne dafa am ñu ñu jàpp ba noppi Ousmane dem ci kaso bi man kenn du ma wax parce que dama xam li xew. bi sëñ Muntaxa di yónnee tàndarma di def li muy rafet yi muy def boobu am na lu mu waxtaane ba noppi li ci waroon topp ñëpp xam nañ ko. bi mu waxee na Ousmane bàyyi Macky am na lu mu wax doon xaar ci Macky li mu doon xaar ci Macky mooy na nga ko bàyyi na nga ko libéré bul ko bul jàmm loolu la loolu la loolu la si doon dox ci suuf parce que nag suñ kilifa yi du ñu wax ci kaw mais li tax ñu jékki-jékki rek noppi ne dootuñ ci wax parce que am na koo xam ne saa buñ ko ñaanee mu maye waaye am na koo xam ne saa bu diggee du ko respecté te buy Macky te te bien sûr xali xalifa yu bëri yu noppi dañoo dem ba xam ne mbir mi léegi ñoom ñaar ñoo xam ne buñ xuloowee nga leen di atte ki néew doole saa boo ko santee mu bàyyi waaye am na koo xam ne moom du bàyyi mukk loolu boo ci continuer di atte loolu lu muy lool. non attends toujours mal interprété le silence des man dama xam man dama fii laa juddoo man doomi Bawol laa mhm. Tuubaa dama fa géejoo lu fa yëngu ya ma yëg ko bu yow bu de comme ni ma la wax rek ku am doole ak ku néew doole di xeex chaque fois boo àttee ki new doole bàyyi mais ki am doole moom day day ñëw bu buñ ko jekkoo mu ñëw ci yow yow boo àttee mu dellu ca lemoon mais soo ko defee benn yoon defaat ko ñaari yoon mais boo ko defaatee lan na ñi di wax dañ naan kii di àtte daa far perception boobu nit ñi am looloo ko indi parce que dafa am koo xam ne lu mu diggee du ko def bu ne dinaa jàmmal du jàmmal ma ne ba mu jaaxlee xam ne coow li am na bëgg na jàmm waaye comme digge na benn yoon ñaari yoon musul respecté mu ne xaaral la ma digge woon naa ko def ngir xëy na mbokk ña ña doon dox dox dama ne kuuk borom teyu ko waaye kuuki kuuk borom moo ko tey loolu leer na naa Abdou xam nga boo boo diggee ñaari yoon respecté woo ko tey bu réew mi ne këtt ne jonn mu leer na ne yow fi mu ne nii yow tu es dans une gravité bi réew mi nekk nii mais kenn mënu ko imaginer parce que coronavirus sax sikkim moo lakkandoo waaye ñun li ñu dugal suñu bokk suñu bopp nii mais guute la goo xam ne d'un point de vue purement économique d'un point de vue purement constitutionnel c'est-à-dire que structure juridique gu réew mi moo moo nara a en fait. Mm-hmm. parce que si le président est là après après le 2 avril conseil constitutionnel dëggal lu nga xam ne c'est c'est le contraire bi nekk ci constitution bi. exécutif assemblée nationale ànd de. mais loolu vous vous vous imaginez imbë mais mais mais amul sens. te j'espère qu'on va venir sur les enjeux économiques. Ah, pour que il faut que rapidement qu'on règle ce problème. donc lii moo tax ma ne la. dialogue nit ñi il manque des fois dañuy manquer li xew ci réew mi dara simple ci c'est complexe. Mhm. il faut prendre le temps de bien analyser li xew. surtout ça. du ci am na ñi nga xam ne ni tey ñu ngi seen wet di xeex ak yéen ñoo ko doon poussé pour mu annuler processus maanaam pour mu reporter élection tey ñu ngi seen wet aussi tamit est-ce que tamit euh, tension politique bi tension bi nga xam ne ni seetlu nañ ko ci dëkk bi violence bi destruction yi économie effectivement nit ñaa ngi ñu ngi ay station Total yi nga xam ne ni ay Sénégalais ñoo ko moom alalu nit di yàq et loolu est jarul jarul aussi tamit ñun askan bi ñu tax a jóg saa yi non mais nag taxawal c'est-à-dire que faut focus rek. koo xam ne nax na la benn yoon nax na la ñaari yoon nga dellu fa ñu naxaat la boo ko defee askan dootul am yaakaar ci yow moo tax nag ñu am fulla mës nañoo dem nag foo faut dire les faits tels wax nañ ci coronavirus dem nañ waaw am na beneen débat mu dige defut ñu ne ko waxee li ñuy waxtaanee mu ne duma ko wax ñu ne ko ñëwuñu parce que nag fu laay jaay Dakar kenn moomuñu donc ñun véritablement fi ñu bëgg a dëkkal ne ay ay non am nekkuñu ay ñu ñu ñu ñu nga xam ne dañu radical non c'est pas du tout ça lu ñu def rek am na fuñ ko teg nit ñi nag mën nañ ko bañ a comprendre xëy na aussi erreur de commun mën ñun ñoo xëy na leeralul. comme ni ma koy defee nii. mais lu ñu def am na ci principe buñ ko teg bi ci topp nee nga li mu dugal gàcc gii mu ñu dugal daa am ñu ànd ak moom def ko yooyu. sëñ bi bu ma boyaloon fourneau léegi ne la dugal ci sa loxo bi kaay ma dimbale la doo ko doo ko nangu. doo ko nangu. si Macky Sall a reporter les élections c'est parce que daf ci gisoon intérêt mais il ne mesurait pas. la gravité de cette décision waaw gravité décision bi foo ko natt weesu na ko il ne l'a pas mesuré moo tax après bi mu ko jëlee nag gis conséquence yi ni mu toll mu gis tout un peuple de contre lui pour lui pour dire ko ne ko nag da nga juum tu te trompé de peuple ñun nous sommes des démocrates et on est fiers de ce que nous lii nga ñu def duñ ko nangu loolu mooy njëkk problème bi mu gis monsieur Fofana euh, man dama bëgg ñu ñëwaat un peu si décision bu conseil constitutionnel parce que am na un lien avec euh, le chapitre dialogue bi ñu nekk actuellement nous considérons vain heureusement que le conseil constitutionnel bon c'est une évidence àdduna ci et euh, war nañu mën a mu inciter d'ailleurs les autorités publiques à ce que ñu organiser dans les plus brefs délais l'élection présidentielle dialogue bi bu ñu waxee à ce niveau-là on considère que mbiru peuple bi la comme vous avez l'habitude de le dire comme vous avez l'habitude de le faire tey bu ñu woote woon euh, dialogue juste juste pour euh, fixer la date de de l'élection présidentielle évidence vous allez être partie prenante juste pour cette question-là puisque vous dites que euh, yéen nekku leen ñu radicale euh, au sujet de la question du dialogue c'est une question qui est difficile pour moi pas parce qu'elle n'est pas évidente mais parce que man rek mënuma engager tout un groupe mais ku xam li ma fi expliquer léegi mooy à chaque fois que l'intérêt général est clair dans la tête des Sénégalais et que processus waxtaan wi dafa nekk lu leer gisuñu lan moo tax ñuy gedd loo xam ne njëriñu askan wi la gisuma mais nag mënuma nit aussi euh, xam nga xam nga nit aussi duñ la ne yaa duñ la ne da ngaa bokk ci xew mi nga yaakaar ne yaa ko <laughs> yaa ko moom <laughs> waaw am ndaw laa donc am na loo xam ne mënuma ci àddu mais man ni ma mesurer la gravité de la situation pour man réew mi mi ngi ci guuta goo xamante ne nii la situation est tellement grave que nous devons trouver des solution ça moom ku ku ku kuy patriote xam nga ne réew mi mi ngi ci situation bu extrêmement grave on a on a jamais touché le fond à ce point donc loolu ku ko nanguwul gis mooy y a un y a problème de citoyenneté donc la gravité est extrême Macky Sall def dafa dafa dafa dafa tooñ askan wi c'est une violation de la constitution confiscation du scrutin ba noppi lii yëpp andil ñu ce qu'on appelle des risques économiques et budgétaires mais yu grave je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire les États-Unis d'Amérique émettre ay not ne je ne suis pas d'accord élection na am économiquement parlant ça veut dire tous les investissements yi nga xam ne des acteurs proches du de l'écosystème américain dañ ko war a def foofu dañuy jot alerte dañuy retarder seeni investissement wala ñu bloquer ko rien que note boobu l'Union européenne def la même chose la France def la même chose. Mmh. leen ce que ça veut dire pendant douze mois def def naa ko poste